li safinatan bi kullil janna min daari minan yaasal minna li safinatan bi kullil janna min daari minan yaasal minna bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu maa ngi nuyu bokki taalibe yëpp di leen nuyu it ci ndigalu Seex Mamadou Muntaxa sëriñ bi wax ne mi ngi nuyu bokki taalibe yi di leen sant di leen gërëm ndax fan yi ci ginnaaw la leen ñaanoon ñu may ko ab diir mu wéet wéet ak boroomam ñu noppalu liggéey bi ay fan rek war cee delluwaat booba it mu waxoon ne buñ àggee ci mu war a delluwaat ci dellu si liggéey bi dana ko leeral bokki taalibe yi ñu xamandoo ko ndax ànd ak ñoom liggéeyu bi Sëriñ bi rek mooy yitteem mooy pas-pasam mooy yéeneem itam mu wax ne kon diir bi mu ñaanoon toll na ci mat mu am yéene dellu si waat Tuubaa bu dibéeree dana fi nekk altine waaye bu fi nekkee altine nag day dellu njaarim talaata ak alraba bu nekkee njaarim talaata ak alraba ba alxames mu dellu si waat Tuubaa bu ñëwee danañ liggéey ak taalibe ak daayira yi ci dajeeg ñoom ci ajuma gaaw dibéer kon ñetti fan yooyu fu daayira nekk te bëgg ñëw ci sëriñ bi mën na cee ci ñetti fan yooyu bu ci jubu mu xalaat ko te dañ teñ def nañ daan def woote ñu xam daayira ba ak bis ba mu bëgg ñëw moom ñu xool bis booba ba fekkee xatut ñu nangul ko ko bind turam bu ñëwee fekk fi sëriñ bi fekk na fi bu ko defee nag dibéer jooju lañ war a seenu weeru koor wi doxinu biir koor gi itam bu ci sëñ bi xalaatee ba tëral ko dana nu ko wax nu jotti lu war ko taalibe waaye diggante bii daal lii mooy ndigal li mu ne ko ñëpp dégg mooy dana dellu si ci liggéey bi incha allahu dibéer waaye dibéer ci ngoon kon dibéer ji jërul benn daayira di ñëw altine dana ko nekk Touba ndax dafee war a teertu itam waa daarul moxti njabootuk maam Ceerno Ibra Faati ak njabootuk sëriñ Ndaam Abdourahman Lo ak laneen lu xëcc ji talaata ak àllarba moom njaareem la ko war nekk ci njaareem it fa jege te bëgg faa siyaare man ngaa ñëw siyaare si njaareem alxames ji nag day dellu si Tuuba li ñuy fàttali di ko di ca di ko baamu rek di ko baamu waxtu wu nekk moo di ku jëm si ci sëriñ bi na teel a jóg na fexe ba na ko midi fekk Tuuba ndax bu ñu demee ba ñetti waxtu jëm ñetti waxtu genn wàll ba ñeenti waxtu ba sëñ bi wàccee ba dugg néegam nañ ko may la si ngoon nga ba ci àll ak sama xëy liggéeyaat waaye ñu daayira yi da ci am ñoo xam ne dañuy jekk ba ngoon ñu door a ñëw bu ñëwee fekk sëñ bi soobu ci beneen liggéey yor kurusam wala àggalem njàngam ñu bëgg ñu génnewaat sëñ bi mu dellu si waat loolu wax dëgg day metti nañ koy bàyyi xel bu baax ku jekke ba jàpp ne mënoo fee ñëw jiitu benn waxtu daal da bàyyi ba ci suba sa koor gi it xalaat bu mu ci joxe ak ndigal lu mu ci joxe danañ ko wax ñëpp dégg ko ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp li sadinatan bi kun lil janna min daari minan yaatal minna li sadinatan bi kun lil janna min daari minan yaatal minna